Malick Diop maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Ndeye Comba. voilà Malick Diop nga nekk chargé de communication bu regroupement des taxis urbains du Sénégal ak euh, mouvement doole transport lan moo waral ngeen daal di teg kuréel gi di mouvement doole transport. waaw mouvement doole transport ñun acteurs transport yi ak les ouvriers du transport dañu toog xalaat ni war nañu taxawal benn mouvement politique boo xam ne day indépendant. du ñëw pour di xeex nguur gi wala muy ànd ak moom wala muy ñëw du côté de l'opposition li ñu tax a jóg mooy fexe bu seen acteurs yi nga xam ni dañu bëgg a jiite réew mi pour ñu boole seen i programme euh, programme transport boo xam dina si seen bi kanam si biir loolu nag ñu ngi ko lancé le 7 octobre passé biñ ko lancé. Euh, démb nañ doon taxawal comité directeur bi ak bureau bi nga xam ne incha allah moo war a doxal liggéey boobu mais mouvement dans les transports c'est un mouvement politique li ko tax a jóg mooy imposer les candidats un programme boo xam ne day jëmale système de transport bi fii ci Sénégal kanam. voilà léegi léegi kon mais ba léegi regroupement euh, des taxis urbains du Sénégal mi ngi am ba léegi. waaw regroupement de taxis urbains du Sénégal mu ngi am ba pare parce que regroupement taxis urbains c' est un syndicat c' un regroupement boo xam ne day yëngu si wàllu développement ak défendre intérêt des travailleurs et des euh, euh, yi kooku mi ngi existé ba tey. façon xeex bu nekk def nañ ko def nañ fi ay sitting def nañ fi ay marche def nañ fi yëngu-yëngal yu nekk pour pousser nguur gi mu xoolaat système transport bi ñuy doxee Sénégal kooku fi ñu toll mi ngi dox ba tey waaye lii de comme dañu toll jamono joo xam ne dañ jëm février deux mille vingt cinq deux mille vingt quatre muy rendez-vous bu am solo nga xam ne dafa am ñu ñëw di dagaan baatu askan wi ñun ñu ni acteur transport ak ses ouvriers di transport. képp koo xam ni dafa bëgg ñëw ñu jàppale ko ànd ak moom gunge ko pour mu jiite réew mi incha allah il faut nga wan ñu programme bu wër boo xam ne wëru ni lii day jëmale transport kanam bu ko defee ñun ñu man see gis suñu bopp. loolu daal loolu daal lañu ñu yéene mooy candidat yi nga xam ni dañuy ñëw pour jiite réew mi ubbil nañ ñëpp suñu bunt di ku fi ñëw ak sa programme dañ la déglu. waaye képp ku bëgg ñu ànd ak yow di nga ñu wan programme boo xam ni ànd nga teg nga am nga vision bu leer ci système de transport bi fi au Sénégal moo tax démb ñu sant suñuy membre mooy transporteurs yi chauffeurs yi ak ouvrier du transport yi nga xam ni yëpp seen liggéey dafa lëkkaloo ak transport que ñu boycotté parrainage yi ba ñu parrainé benn candidat li waral loolu nag moo di mënuñoo parrainer koo xam ni amul benn gis-gis amul benn programme si si transport voilà. waaw est-ce que nekkoo leen Malick di def euh, benn genre chantage. non non du chantage Ndeye Comba xam nga tey réew mi bu ñu dee wax développement te ñun acteurs transport yi gis ñu suñu bopp kon du ñu amal njariñ ñun li ñu bëgg mooy comme yow da nga bëgg ñëw dagaan baatu askan wi bëgg ñu jàppale la. mais yow di ñu wax programme bu leer boo xam ne kat ñun acteur transport yi ak ouvrier transport yi nga xam ne ñëw seq transport dañ si gis suñu bopp mais mënuñoo jàppale koo xam ne amul gis-gis bu leer sax boo ñëwee itam ñun tam dañuy sonn ndax dañuy gis si programme yenn candidats yi dañ lay wax tantôt d' agriculture wax la santé wax la euh, enseignement mais chaque fois pour nga gis ku la si wax programme bu leer jëm si wàllu transport dafa jafe kon nag moom dañuy banque suñuy loxo en attendant ñu gisante candidat yi ba gis si kii moom lu wér ni mooy am na programme bu leer ak gis-gis bu leer si wàllu transport bu boobaa dañu wàcc si le terrain battre campagne jàppale ko pour mu jiite réew mi bu defee ñu transport ñu mën si gis suñu bopp. Hmm. ñu gis ni Malick aussi yéen a ngi demandé renouvellement wu euh, parc automobile bi lan moo waral ngeen di demandé renouvellement parc automobile waaw parce que dañu gis ni nguur gi mi ngi liggéey ci transport de masse taxawal na TER BRT mi ngi dox mi ngi waaj taxaw dem ne leen décembre dina commencé muy lu am solo waaye nag ñun suñu parc bi ñu yor dañu màgget ak présenter qualité de service bu baax léegi nag li ñu demandé nguur gi depuis 2016 la ñu ko promettoon ñii dina def renouvellement du parc taxi yi ak renouvellement parc interurbain. urbain bi mais boobaak léegi 2016 ba léegi lit ñu digoon defu si dara kon nag bu ñu gisee lu mel noonu ñun dañu soxla jumtuwaay yu baax pour ñu mën a joxe qualité de service bu baax dañu gis ni tam nguur gi war nañu jàppale ñu jéem a formaliser secteur transport secteur transport parce que tey liggéeykat bu nekk bëgg nga di bénéficier wu ci avantages sociaux yëpp bëgg nga am IPM e bëgg nga am IPRES bëgg nga am euh, boo feebaree faju bëgg nga boo soxlaa xaalis sax boo demee si banque yi am na la garantie ñu mën a lebal nga mën a nga mën a avancer mais li ñu gis nii ci Sénégal bu ñu toogee di setaan transport bi mooy dee parce que fi ñu mën daanaka mi ngi loolu nag mhm. moo ñu tax a jóg pour ñu xool candidat yi yi nga xam ne dañu bëgg a jiite réew mi kan moo ci am gis-gis ak programme bu leer boo xam ne dina transport dina la mën a jàppale pour ñu mën a avancer. ndax day kumbal lu mbar bàyyi xel la. waaw sur cinq cent cinquante communes yi nekk Sénégal doo si dem benn te doo fa fekk garage yow doo fekk ay chauffeur boo si mën a dem chauffeur yi ñoo fa yóbbu askan wi di leen indi kon teg démocratie affaire majorité la jàpp nañu ñun acteurs transport yi ak ses ouvriers mate nañ ko sëkk kon dinañ battre campagne. wàcc su le terrain xool la meilleur candidat ñu jàppale ko pour lu jëmale transport kanam. Euh, léegi bu weesoo sax euh, wàllum renouvellement parc automobile euh, lan mooy yeneen jafe-jafe yi nga xam ni fi ñu toll nii Malick Diop soxal leen. waaw jafe-jafe yi mooy dañu bëgg ñu def l'assainissement du secteur parce que secteur du transport dañ ko mbay yàlla yaa ngi gis càq-càq moto yi amuñu droit def transport fii si Dakar. ñu ngi koy def nu mu leen neexee clando yi ñu ngi fii amuñu benn licence amuñu assurance amuñu dara lu leen ko permettre war gaynde yaa ngi fi di def transport dem nañ ba rey système transport interurbain gis nañ fi tam ñu taxawal ay application jël ay particulier enrôlé leen si biir ñoo xam ne amuñu permis amuñu licence amuñu benn kayit bu leen permettre ñu def loolu yëpp nag ay jafe-jafe la yoo xam ne day répercuté suñu liggéey tey transporteur bi nga xam dafa jënd otoom bëgg si dara mënatoo si gis boppam yow mi nga xam ne yaay chauffeur bi daawalaan war di verser ñu lay fay mënatoo si gis sa bopp kon nag ñu jot na sëkk ñu gisanteeg nguur gi wala gisanteeg candidat yi xool ban système wala ban programme la ñuy teg pour jëmale transport kanam. Euh, léegi kon da jàpp ni cag-cag yeeg. Euh, genre taxi euh, yi ñuy gis ci ci internet bi yooyu dafa laal li ñuy wax concurrence déloyale. voilà mais loolu c'est du concurrence déloyale pure dure parce que nit ki bu fekkee tey transport ay marche la tey ñun la boo bëggee def taxi fii ngay jaar fii ngay jaar fii ngay jaar ba mën a def taxi boo bëggee def euh, transport interurbain fii ngay jaar. ñii ñëw nag loolu charte yi ak règlement ak loi yi tënk si réew mi respecté wuñu si dara ba pare di ko def nu mu leen neexee mais loolu daf ñuy gaañ ñun ñi nga xam ni dañuy dox si légal si lu légal loolu moo tax nag tey yii yëpp jafe-jafe la pour ñun te dañu bëgg encore ñu formaliser le secteur du transport loolu moo ñuy may jàmm bu ko defee bépp sénégalais bu bëgg a def transport ñu ne la kat boo ko bëggee def si yoon wi ngay jaar bu fekkee awoo si yoon woowu. ñu gàllankoor na loolu rek la ñuy laaj ñun voilà. léegi euh, Malick. Euh, naka mhm. ngeen gisee projet BRT bi nga xam ne bala yàgg dara dina tàmbali. waaw BRT euh, transport de masse la bu am solo boo xam ni Sénégal soxla na ko waaye ñun dañu gis ni berte bi dafa dafay ñëw nar indaale ay gàllankoor gàllankoor yi ñu njëkk a nar itam mooy tali yi nga xam ne ñoo séq berte bi tali yi dafa xat. trop ñoom nag li si jublu mooy décourager ñi nga automobilistes yi chauffeurs yi transport yi ak ñi nga xam ni dañuy yor seen i oto pour ñu gaaree seen i oto ñëw dugg si BRT bi te jàpp naa ni yëf yi warul woon demee noonu voies yooyu ko seq lu mu gàtt gàtt waroon nekk deux fois deux voies oto yi mën di circuler normal. BRT bi mën di circuler normal bu ko fee lépp day nekk bénéfice su population bi gis nañ tamit ni bu fekkee da nga créé transport de masse ba bu pare bàyyi transport bi mu fekkoon ñoom ñu màgget te am na arrêté boo xam ni suñu ministre tutelle jël na ko muy Mansour Faye wax ni si deux ans oto yi nga xam dañuy dépassé vingt cinq ans yëpp dootuñu mën a def transport te boo dee xool quatre vingt quinze pour cent oto yi fi nekk def transport am nañ plus de vingt cinq ans à trente ans loolu nag walaa ñu fay àgg. nguur gi pour lam ñu diggoon nii dina indi benn programme bu yaatu pour renouveler parc bi loolu la ñu bëgg mu respecté ko commencé renouvellement parc bi avant BRT bi di commencé daw mais suñu bàyyee nii dinañ créer mille emplois waaye rey dix mille emplois loolu nag la ñuy bañ moo tax ñuy jóg di yooxu moo tax tam ñu jël yettu politique bi façon wàcc si langue bi pour képp koo xam ni da nga ñëw indi programme bu leer ci transport ñu jàppale la boo buñ ko ñu gis ni yoroo benn programme pour transport kooku bu boobaa duñ la jàppale ñun suñu bopp la ñuy jàppale. léegi nii Malick mais dañu gis ni dund bi cher na lépp a yokk mais aussi yéen seen côté transport bi dafa yokk prix wu taxi léegi dafa dafa gën a yokk lu tax ngeen def loolu exactement. waaw léegi man jàpp naa ne sax trans euh, prix yi yokkuwul ndax bu ngeen fàttalikoo mat na pratiquement deux ans. nguur gi dafa yokk gasoil bi daal di promettre woon acteur transport yi ñu ngi dina génne lu mat vingt neuf milliards dimbalee ko secteur transport bi pour ñu mën a am oto yu baax mën a liggéey tranquille mais boobaak léegi loolu mu ñu waxoon gis vingt neuf milliards yooyu mu doon wax dara gisuñu ko léegi nag ci biir loolu am na ñoo xam ne tey wax dëgg yàlla gis nañu lépp cher carburant bi yokk nañ ko terewul ñu ngi continuer suñu même tarif yi di liggéey gis nañu yeneen ak yeneen yu bari mi ngi cher te nit ki dañ lay sas parce que sa kër bi moo informel borom oto bi boo wàccee bëgg loo ko jox bëgg loo yóbbu sa kër mais vraiment ñi ngi dund jafe-jafe yoo xam ni jaakaar naa ne ñi ñu jiite dañ ko xamul waaye buñ ko xamoon dañ si jóg ak euh, li ñu man ngir dimbali acteur transport yi. voilà euh, euh, waaw njiitu réew mi de bu ñu ko dee lancer appel xanaa dañuy dañuy dolliwaat rek ndax defe naa bind nañ ko ay bataaxal ay yoon def nañ fi ay manifestation syndicale def nañ fi ay sitin euh, li ñu xamoon lépp loo xam ne jàpp nañ ni buñ ko defee ñoom ñu dégg ñu def nañ ko waaye boobaak léegi gis nañ ni ba léegi njaw des na mu xam ne kon nag li ñu koy lancer appel comme li ko fi desee bariwul mooy li nga xam ni moom la diggoon acteur transport yi jëm si renouvellement parc taxi urbain bi ak interurbain bi la ñu bëgg mu commencé wala berte bay dal bëgg nañ tamit secteur transport ñu fekk ay loi ak ay règlement yoo xam ni képp bépp sénégalais bu ñëw bëgg def transport ñëw nga jaar foofu képp koo xam ne da nga ñëw fekk loi yeeg règlement yi ñu teg pour lu jëmale transport kanam nga ne doo ko respecté dangay def lu la neex ñu jël suñu matuwaay fexe nuñ la gàllankoore loolu daal la ñu bëggoon mu jàppale ko transport pour boo defee transport mën a jëm kanam parce que ay borom kër ay milliers de milliers de personnes ñoo si nekk yoo xam ne si transport rek la ñu yaakaar pour dund pour du jàppale seen njaboot. voilà merci beaucoup Malick Diop maa ngi lay remercier bu baax a baax. jërëjëf Ndeye Coumba maa ngi lay remercier di remercier waa réew mi yëpp di leen jaajëfal. may fàttali ni Malick Diop yow yaay chargé de communication bu